Euh, fii daanaka dañu xëy ce matin dek Descos ñëw ne daf ñuy génne si camp bi si ku nga xam ne maa fi gën a tuuti si camp bi j'ai 26 ans de présence si biir camp bi y a des collègues qui ont 34 ans 36 ans de service si biir camp bi donc ñun l'armée française moo ñu fi logé woon ñun ak ñoom ñoo doon liggéey nekk si jàmm si biir camp bi dëkk fi ak ay officier français si biir camp bi ba yàlla def li nga xam ne tôt ou tard ça devait arriver mooy rétrocession base yi ba militaires yi français yi di delloo base u base u base yi nga xam ne moom la ñu doon occupé au président Abdoulaye à l'état du Sénégal maanaam au président Abdoulaye Wade donc dans sa visite des bases rétrocédées ba Wade di def euh, le tour de ces bases rétrocédées dem Bima dem Mermoz dem Sentex mujjee Claudel ba mu duggee biir Claudel am lu ko jaaxal trop gis ku la del ak ay nit mu ne mais ñii ñan la xëy na mu donc la nekk ay militant am la ñu ñu ne ko non sëñ bi ñun nous sommes les résidents de ce camp ñun ak tubaab yi ñoo fi dëkkoon ñoo doon liggéey ak tubaab yi yëf bi mu amee tubaab yi dañoo jël seen ressortissants yi dem casé leen mais ñun en tant que gis gisuñu benn autorité sénégalais ñëw s'enquérir de notre situation mu ne ma en bas ma ne ko effectivement mu woo attaché de kii de Kaam ne ñi rapproche-toi d'eux nga xool li nga xam ne mooy seen seen seen i donc ñu mu ne leen vous pouvez vous êtes combien de famille ñu ne ko ñun six familles dong mu ne six familles dong dem leen toog donc Wade li mu fi nekke yëpp kenn mosuñu inquiété kenn mosuñu xoxatal donc il aurait suffi que régime bi changé militaires yi commencé ñëw ne ñu dañu war a génn si Kaam dans un premier temps seen ay soxna ñoo doon def ay pétition mooy ñi fi njëkk a ndekk ay en 2011 seen ay jabar ñoo doon def ay pétition di wër ne ñun dañu war a génn si camp bi parce que camp bi c' est pour les militaires ñëpp xam na ne que c' est pas un camp c' est une cité parce que fi dëkk ak tubaab bi tamit avait des civils y avait des fonctionnaires y avait des ouvriers y avait même des officiers donc donc la la suite de ce truc ils nous ont devant notre refus ils nous ont amenés au tribunal donc après plusieurs euh, batailles juridiques la cour d' appel les a sommés d' arrêter de parce que un moomuñu camp bi de deux ba ñuy ñëw si camp bi lañu fekk et de trois Abdoulaye Wade moo ñu fi bay donc kii cour d'appel cassé li nga xam ne mooy loi boobu arrêté boobu en 2015 à notre grande surprise en 2015 jusqu'au jusqu'aujourd'hui il s'élève euh, dugal Descos dans la bataille Descos qui dit que le code de l'urbanisme may na ko à ce que mu déloger ay nit ma foog ne Descos c'est pour l'occupation anarchique pour les constructions irrégulières la Descos si yëngu Mais parce que DESCOS dépend de l'armée. L'armée qui a perdu devant la cour d'appel, sommet la DESCOS pour que sommet la DESCOS pour que ñun ñu génne si si camp bi ba indi si sommation lan la ñuy wax ñun di jël sommation ki nga xam ne ñoo ko gagné tribunal parce que sëñ bi mënoo dee tribunal ñu jox la raison sa adversaire indi la euh, sommation ne da nga war a génn loolu ah sunu avocat notre avocat est là notre avocat la xëy na on a écrit au chef d'état-major de l'armée on a écrit au chef d'état-major de l'armée on s'est dit peut-être ne que moom il sait pas ce qui se passe ñu ne ko que vos n'ont pas le droit d'agir comme ça parce que la cour d'appel a déjà tranché ñu boole si grosse cour cour d'appel yebal ko ko jusqu'aujourd'hui il nous a pas répondu jusqu'à ce matin et depuis lors kenn dégguñu si mbedd bi ou quoi que ce soit La solution aujourd'hui, moi j'ai dit que solution, est, la, la, la solution c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, la boulimie, c'est pas à Djindler seulement. La boulimie, c'est pas dans le ferlo seulement. La boulimie, c'est pas les gazelles, les, les, les gazelles seulement. La boulimie foncière, elle est même dans cette capitale-là. Elle est même dans cette capitale Parce que les pères de famille qui ont travaillé pendant 6, 26 ans, 30 ans, dans ce camp, il y aurait entretien quand jusqu'à ce que nous, nous, la chance, nous, octroyer le logement humain, ils le doivent à ces et ce sont ces gens-là qu'ils mettre dehors aujourd'hui ba xam ñoom ñoo xam fu ñu bagage ñoo xam fu ñu yóbbu bagage nous on a dit juste comme mais nous faisons appel à toutes les bonnes volontés imbus de droits de l'homme ñi nga xam ne justice yitteel na leen que nañu gestu ci problème boobu naka la ay autorités di transgresser la loi de la cour d'appel arrêté cour d'appel nous allons vers quelle justice si eh, en tant que nos officiers s'ils nous donnent pas l'exemple à suivre en respectant les règles nous qu'est-ce que nous allons transmettre à la génération future